وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي صباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñuy ci MK TV yëpp di canal télévision bi nga xam ne moo nekk fii ci biir jumaay Tuuba ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk muy safarul xayri wal di wax ne rek dikkaat nañ ci suñu jotaay bi ñu duppee alliqa muy ndaje ñu baaxoo di ko ànd ak ay yëngukat ci wàllu xam-xam ay gëstukat ñoo xam ne dañuy yëngu ci di feeñal ak a béral xam-xam ci ay wàllu yu wuute tey maa ngi feggoog suñu mbokk suñu xarit di kenn ci ndawi dëkk bi di ku yëngu ci xam-xam muy sëriñ Mor Sourang waaye bind ab téere bu am solo boo xam ne xam naa ci kanam tuuti danañ ci dikk incha allah kon ci gàttal lañu koy jox rek mu daal di nuyoo xamle mooy kan ndax yaakaar naa ne bu ñu waxee ab téere juñu solo sim am bala ñoo dugg ci biir téere bi dëgg-dëgg war nañoo xam kan mooy ki bind téere bi kon sëriñ Mor boo ñu doon tënkal ci gàttal sa jaar-jaar ak yaay kan ci ay tomb yu gàtt rek gannaaw bi nga nuyoo kon dañ lay jébbal kàddu gi ci wàllu googu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen nuyu wax di siyaare yéen ñi eh, seetaan eh, Muqaddamatul Xidma TV di ci émission bi nga xam ne mooy liqa ndaje ñoo ngi ci ndokkeel ñëpp ci weeru tëdd yi di weeru safar di ñaanoon suñu kilo Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi eh, te wér di am mbégte ci dalal ngeen dalal ginnaaw loolu ñu xamle ne suñu suñu suñu tur mooy Mor Soone euh, fii ci Touba dëkk bi fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo euh, fi la ñu jàngee alxuraan ba wattu ko jànge fi xam-xam ci diggante daaru maarif daaru si as jaxate kër sëñ Afia Bousso ak Guinée ak école Al Azhar bu Ndaam ak euh, excellence Serigne Mbacké Bousso loolu mooy sunu jaar-jaar ci wàllu njàng jamono ji ñu féete Ndakaaru di fa yëngatoo di gëstu ak di jàngale ci euh, virtuel bi euh, yor ci école yoo xam ne euh, fu ne ci àdduna bi nit ñaa ngi fa di ci dund ñu di leen jàngal. ok jërëjëf Serigne Mor kon ci gàttal yaakaar naa képp koo xam ne mu ngi teewlu jotaay bi xam na tuuti ci ki nga xam ne moom moo taalif téere bi téere bi nag mu ngi tudd Muridullah Ubaydullah sëriñ Mor Sorang mi nga xam ne moo doon xam ne boppam léegi moo ko taalif euh, bala ñoo dugg ci biir waxtaan wi dëgg-dëgg rek dañuy jéem gëstu téere bi tuuti xool lan la làmboo ak lu mu ëmb waaye mel ne sëriñ Mor kon képp kuy taalif téere rek am nga ci ab jubluwaay bu tax nga koy taalif ci gàttal xam naa boo ñu mënoon a tuddal lenn ci jubluwaay yi nga xam ne rek moo tax nga taalif téere bi bu ko defee ñu gën a xuus ci waxtaan wi. waaw euh, téere bi euh, téere bi li sabab ñu bind ko moo di am murit ci boppam dafa toll foo xam ne da mel nit ñi murit bu nekk dafa doon muritu boppam yor aw dégg boppam ci ak murit mu mel ni Sëriñ Tuubaa ci boppam moom ni teg yoon woowu da ca jàngalewut lu leer lu mën a jàpp waaye ku ci ne rek boo fekkoon fukki murit yu toog ku ci ne nga laaj ko lan moo dig murit lam lay tontu du bokk ak la la moroom ji di tontu kon nag jamono toll na foo xam ne laaj na ñu dellu ci njàngalem sëriñ Tuubaa ak mbindum sëriñ bi jéem caa jukkee loo xam ne nii dañ cee teg baaram teg ca loxo wax na lii moo di murit bu ñu ko dajale nag ba yaxal ko bind ko boo tasaaroo laaj boobu ci boppam tontam bi mujj doon lenn tontu fu ñu ko laajee nit rek mu mën a def cëslaay delluwaay ci muridullah bi nga xam bind nañ ko. ñu ne ak murit kat buñ delloo ci bindum diw nii la wax ne moo di murit nii la ko sëñ Tuubaa jàngale nii la ko sëñ Tuubaa tënke maanaam daal dégg ñu wuute ak réere ak nit ñi ci ak murit ak ñu wuyusee sëriñ Tuubaa ci réew mi laaj na nag ñu tënk lu leer ci ak murit teg ko ci seen loxo ba képp ñu xamal la ne li nga sóobu ne moom nga di ak murit mooy lii loolu moo tax ñu bind ko jërëjëf sëriñ Mor kon wax nga yu am solo yoo xam ne jàpp naa ne benn bu ci doon moom rek mën naa tax nit taalif ab téere kon ni ko leeral noonu jàpp naa ne ñi teewul waxtaan wi danañ ci bàyyi xel waaye gis nañ téere bu ne tudd na tur wu ne waaye mel na ne tur yi moom ci tur yu bees yi la bokk muy muridu muridullah lan moo waral turu muridullah gi waaye li tax su tànnal suuf si tuddee ko muridullah boo dee seet àdduna bépp bépp ba yàlla daree bind ci sunu maam aadama ba kay mujj ñëpp ay morit lañ murid moom ñëpp moom lañ ndax amul kenn ci àdduna lu nit gàtt gàtt yitte amul kenn koo xam ne nii amul ak nammeel amul ak bëgg-bëgg moo xam bëgg-bëgg ba lu bon la lu baax la lu kawe la bari lu suufe la lu rëy la lu ndaw la lu gudd la lu sew la lu yaatu la luñ ci maamam ak bëgg-bëgg am na euh, namel googu am na ci mboolem nit ñëpp daje na daje na ci ñoom kon nag bu ñu waxee murit rek jam ci man nga ci am dégg déggin wala sopp ci kooka la muy bëgg lu doon waaye nag boo jëlee turu yàlla wi maa wéer ko ci muy muridullah da boo ko bu da xam ñun fi nu jëm fan la ban murit lañ jubloo wax ay mbiram mooy muridullah aji namm ji jëm yàlla kooku moo ñuy teel kooku eh, leeral mbiram moo tax ñu eh, tuddee woon noonu ndeysaan kon loolu am na solo lool muy muridullah mel na ni kon képp koo xam ne dangaa nam ma jëm ci yàlla rek muridullah nga waaye nag xëy na balaa melowoo am ci yow dëgg-dëgg dana am ay melokaan yoo xam ne walla ay jukko yoo xam ne danga ko làmboo waaye li ñu baaxoo gis ci suñu dig-digal bi mooy ci suñu réew mi mooy kenn ku ci ne dangay taalif ci waneen làkk bari na ay taalif yu am yoo xam ne ñu ngi ko taalif ci làkku arab yenn ñu ngi ko taalif ci làkku français am na ci yoo xam ne ñu ngi ko taalif ci yeneen làkk waaye mu mel ne sëñ danga tànn gën a jibu taalif téere bi ci làkku wolof est-ce que mën nañoo xam lan moo tax nga taalif téere bi ci làkku wolof ah, li waral loolu mooy eh, ñi ni waxal ñooy taalibe sëñ Tuubaa yi taalibe sëñ Tuubaa ëpp ci ñoom eh, mën nañoo jàng mbind wolof ndax mbind ya daan jiitu daan am lu bari mbind arab lay doon te boo seetloo ñu néew a ñoo koy mën a jàng te mbind mbind yi ña koy tax a jóg dëgg-dëgg daanaka duñ ko mën a jàng ndax bind boo seetloo dafa am yoo xam ne boo koy bind am ñoo génn ci ak réer dimbale leen bu dee nga jublee génn ci ak réer moom làkk wu ngay bindee jékkoo ko kooku nga man koo jàng du yomb bu fekkee da nga ko bind ci français it mbooloo mu néew ñoo koy mën a jàng boo seetloo nag bu làkk wolof yi ñi nga xam ne dañoo jàng dañoo jekku làkku arab même ñoom nit ñoo wëlbatiku jekku làkk wolof yi ñi nga xam ne ñoo jekku làkk français bi di ay étudiants wala ay élèves walla ay intellectuels ñu ko mën a tuddee ñoom dañoo wëlbatikuwaat jekku làkk wolof yi ñu xam ne nag buñ ci bindee dina gën a yaatu te ñi koy soxla ñi ciy am accès man ci yegg ngi gën a bari ci mën ko bindoon ci weneen làkk te loolu def nañ seetlu bu baax bi ñu génnee ba tey euh, fu ne ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi fi jokkoo ñu di yittewoo téere bi ak di ko wecc ko te loolu gis nañ ne maanaam làkk yu ñu ko bind bokk na ci li tax nit ñi di ko wecc ko noonu ak di ko yittewoo noonu. waaw kay jërëjëf kon xam naa dañuy jéem a ci lu gàtt jéem tànn ay buntu ci téere bi ngir. ñu mën koo jàppee ak gaaral gu gàtt mel na ne bu may xool euh, xët wi nga xam ne moom nga tuddee tolluwaayu dog yi muy rek fi nga xam ne fi lañuy def tomb yi nga xam ne moom nga jota euh, faram-fàcc ci téere bi gis naa ci baatub murit suñ moor est-ce que mën nga ñëw tënkal ci lu gàtt baatu murid lu muy tekki ak noo ko la ci biir téere bi waaw buntu boobu la ci tënk mooy li ma jëngu sànq wax ni ñëpp ay murid lañ kon nag ndegam dañu bëgg a leeralu murid mën nañoo indi ci alquran yenn xeetu murid yoo xam ne ni na leen tudd ndax alquran am na nga xam ne ni day wax ne seen nammeel seenu nammeel ñoom mooy fay leeru yàlla fay lislaam te yàlla moom du màngo loolu kooku amul ay ñooñu ay ci seytaane lañ ñu tudd ci téere bi am na ñoo xam ne nii seen lu mel moo di am seen pay jag maanaam bu seen pay jagee lijjantewuñ ndiggalu yàlla yàlla lijjantewuñ ko topp lijjantewuñ ëllëg ñoom ñu seen pay jag rek jaay rek yàlla ne ñooñu moom lañ soxla tey dana seen la ko ci soog moom yàlla mu jox leen ko bu ëllëgee mu tàbb leen jahannam ñoo ñu ay mur ci àdduna lañ moom ci euh, ñoo xam ne ñoom ëllëg li ñu maanaam ñu sonn leen ci nangoo jaamu yàlla ndax bëgg bu ëllëgee ñu tàbbi ajana te mucc ci sawara ñooñu di ay ñoom alaaxira maanaam murit moo xam ne ni yàlla da ko yàlla dafa digle wax ne ku def sama ndigal da nga dem ajana képp ku wattu sama tere da nga mucc ci sawara ñu ñu def ndigal yàlla yi wattu ay tereem ngir bëgg a mucc kooku la ñu ak mawt wala axira euh, ñeenteelu murid nag mooy murid bi nga xam ne moom moom mucc rek taxu koo sóobu taxu taxu koo jaamu yàlla waaye moom jëmm yàlla ci boppam la xam ne ni ki ni saxaaba yi doon def allazina yadoona rabbahum wala tabidu allazina yadoona rabbahum bil ghadaati wal ashiyyi yuriduuna wajha jëmm yàlla jooju ñu bëgg moo leen yóbbee suba ngoon ñuy ñaan yàlla di jàng alxuraan di tudd yàlla di julli julli juróom ak di naafila yooyu yëpp kon kooku it eh, mooy murid nag du muridullah kooku dëgg-dëgg mooy aj ma ji di jëm yàlla ji murid boobu nag moom lañ dundoo woon a leeral mbiram ci téere bi moo tax ñu tàmbali indi nit xeetu murid yoo xam ne am na ñoo jël ñeent ok jërëjëf mel na ne kon melaw murit bu leeree dana baax lool melaw ki ñu muritu tamit leer muy melaw sëriñ loolu it gis naa ko nga koy leeral ci xëtu ñeent fukk ak benn boo ñu juróom tënkalaat ci lu gàtt ngir ñu mën a bokk ak mbokk yi nga xam ne ñooy teewalu jotaay bi gaaral téere bi di muridullah melo yi sëriñ te mooy kilifa kilifab murit mooy lan waaw ba tey dañoo dellu ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa euh, ci yooyu ma wax jëme ko ci ay am murit naka la war a mel li ci jiitu mooy am murit daa war a nekk ak jullit maanaam aji gëm joo xam ne ni ngëmam day seet wecc lenn ci bokkaale du ci rax ku set tawxiid lay doon waaye mu doon ab jullit boo xam ne dafay euh, jaamu yàlla santaane yàlla yëpp mu taxaw ci niki julli juróom euh, woor aj màkka natt asaka def ay nawaafil saraxe xeet yu yëpp rek nga xam ne ni ay jëf la yu lislaam santaane mu di ko def ba ca topp murid bi eh, bokk na ci melo mu doon ku la maanaam koo xam day sellal ay jëf am na ixlaas mucc ci luy xeetu ngistal wala lépp luy xeetu ak naafeq ci ay ay jëfam maanaam pas-pasam da koy sellal ay jëfam it euh, da koy sellal murid bi bokk na ci melam day doon ko xam ne yittewoo xam-xam ndax Sëriñ Tuubaa dafa yàgg soññee di wax ne yéen waxambaane yi bu ngeen ragalee gàcca di xam jëf am na beneen bataaxal boo xam ne maa ngi digal mboolem ñu aju ci man ñu jàng lépp luy wéyal seen tawxiid ak tey laab ak tey julli ak ak loo xam ne mu kàllaf war na ko xam rek maa ngi leen digal ngeen jàng ko ba xam ko ci la tegee ne man war na naa leen taalif yoo xam ne nii xam-xam yooyu mu leen digal lépp dana nekk ci biir bataaxal boobu da koo jëmee ci murid yu góor yi ak murid yu jigéen ñi ñëpp kon murid bi war naa yittewoo xam-xam ginnaaw xam bi murid bi war naa doon ko xam ne day jëfe xam-xamam ndax xam-xam du looy am rek toog di xoole ndax xam-xam moom boo ko amee nga ne benn fondement ci ab bâtiment tabax nga def fondement fee jëfoo nag fondement boobu tegagoo ca dara kon xam-xamu jëf noonu lañ demee waaye bu ëwoo xam-xam Euh, bëgg jëf day mel na ngaa teg ci fondement maanaam da ngaa jël jël ab tabax rek ay poto teg ko ci loo xam ne nii fonde wuñ ko boobaa day jékki-jékki maam moo tax suñu wax ne fan wal amalu jawharaani li xayri daarayni jëndiwaani ñaar yooyu jamono ji nekk ñooy ànd ginnaaw xam-xam bi am ci yoo xam ne yow saa di mooy diggam ak ay moromam yu baati ni mooy diggam ak moromam yi xam ne moom la seq ak euh, ay moromam boo demee ci nahju xadaayil xaaj sëñ Tuba indi na ci euh, xeet yu bari buñ ñu moromam nag mooy mu def rek euh, diggante nit ki ak ay waajuram diggante nit ki ki ko mag ki mag ñi maaseel ab sëriñ ab xarit loolu yëpp amu ci benn boo xam ne bàyyi na bu dee teggin yi nga xam ne mooy teggini baatin diggante nit ki ak boroomam boo demee ci Masaalikul Jinaan ci bunt boobu muy wax ci teggin da gis mu indi ca yu baree bari yoo xam ne da koy jëmee ci ay teggin murid bi war ko amee am na fu mu koy tënkee wax ne e, teggin sa digg ak sa borom yii rek la jëfe ay ndigalam wattu ay tereem e, nangu ay dogalam tey muñ ay balaam yooyu bu dogal mu wax ne bu dee sa digg ak nit ñi ñetti xeeti nit am nañ am na nit ku yàlla suturaal am ku yàlla jay am ku yàlla jayut suturaalu ko ki yàlla suturaal ko ki yàlla jay jay ko ki yàlla jayut suturaalu ko nga bàyyi ko mu ngërëm ko yàlla bindee loolu mën nañu ko jinju ci melo yi nga xam ne mor sa murit doo amee incha allah jërëjëf eh, kon bu ñuy xool rek dañu gis ne bunt yi bari na mel na ne it dog yi it dëgg yàlla forom fàcce gi am na solo ñëw nañ ci baatu murid ñëw nañ ci melo murid bi ak meloy sëriñ waaye damay daal di jàll rekk ñëw laaj la ci ku aju ci ku aju ci sëriñ Touba loolu mi ngi ci xatu juróom fukk ak benn foofa loo ca loo ca forom fàcce ca wàll googu mm-hmm. sëriñ am ay meloom mooy mu doon koo xam ne dafa doon lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di xeeñtu eh, aw yoonam wa sayxu laa yuxaalifu moom ab sëriñ ab sëriñ moom boo ko tegee ne teg ne njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn lañ war a doon waaye wóor ñoo doon ñaar eh, bu fekkee nag sëriñ li ko sëriñ bi indee am na ñetti xeetu sëriñ yu nu mën a wax sëriñ buy jàngale am na ju mu aajowoo niki xam-xam bu wér bu tegu ci alxuraan ak sunna niki làmmiñ wu leer wu mu jàngale niki xam xel mu sell moo xam ne ni da ci mën a ràññeele wàccuwaayu xam-xam doon ko set doon ko ragal yàlla sëriñ boo xam ne day tarbiya moom it day doon ko xam ne nii ku xam li xew lay doon xam nit xam nit biir ak bëti li li tax nit mën a am ak wàññiku li tax nit mën a am ak dolliku doon ko xam jamono ak li jamono di indi nit ñi bindoo réalité yi atay xam atay sariyan loolu lépp na da koy xam-xam goo xam ne ni lu mu dund lay doon lu mu jàng lay doon lu mu dëgg-dëgg lay doon waaye it mu doon eh, koo xam ne day xam ni muy soppe mbir maanaam tarbiya gi muy tarbiya eh, du ca feeñal bakkanam mukk day doon ko sàmm sàmm goo xam ne day juddoo ci dëgg-dëgg ak ngëm gu wér goo xam ne ni mooy waral la muy def lépp da koy natt ci dëgg waaye du ca euh, topp bakkan mukk kooku sëriñu tarbiya moom loolu lay soxla woo sëriñu tarbiya jëmm lay doon joo xam ne nii ku jàkkaarloog moom rek gis ko dalay lay dolli positif ci ngay jëf ku wax Muhammad ibn Waasi' wax nañ ni euh, nit yàlla yi daanañ def bu nu demee ba xaw a yokkar ci jaamu yàlla dañuy dem xool jëmmam ji daal di amaatoog cawarte bu yàgg-yàgg doon ba ba yëgaatu tayal door a demaat duñ dem mu leen i waar duñ dem mu wax ak ñu waaye dañ dem xool jëmm ji rek mu soññ leen loolu la ñuy wax ak tarbiyatu bil xaal euh, naka noonu yit euh, di wax ak moom maanaam sëriñ boobu jax wax ak moom day nit ki positif day day day jeqi aali nit ki ni ki noonu sëriñ boobu euh, jaxasoog moom day tax nit ki di am ay leer ak ak ak ak yëg-yëg ci diggam ak kon daal loolu ay xeetu sëriñ la yoo xam na ne euh, sëriñ Tuubaa jàngale na ko ci kuy jàng sëriñ buy jàngale sëriñ buy yare sëriñ buy euh, yéege fa sunu borom waaye na mu ko waxee rek képp koo xam ne moom la muy diglee ak la muy tere euh, tëgg ko ci njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam wala ndigal yàlla ci bakkanam rek la ko teg sëriñ Tuubaa nee na kooku nañ ko daw ndax kooku réer la te di te di réerale mm-hmm.

ca wax ja dacaa teg seen ne tasawufu euh, nag euh, looloo waral moom Sëriñ Tuubaa bi mu dikkee dafa gis ne baat bi baatu murit sëriñu tasawuf yi di ko tuddee taalibe yi ànd ak ñoom dafa gis ne lim bëgg a def dëgg-dëgg dëppoo baat bi ndax baat bi mën nañ ko mën nañ ne sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ak murid la nga xam ne moom am murid lañ koy wax maanaam koo xam ne jëmm yàlla la bëgg saaba ya lañ nekkoon ak murid la ay murid lañ ñoom it topp ci ñoom ñépp ay murid lañ sëriñ tasawuf yi fi jaar taalibe yi ñu àndoon deen yar ñu di leen wooye ay murid bind ay téere yoo xam ne dañ ci wax ñëpp ñu suñ tubaab di jëfandikoo baatu murid da bari ci mbindam ñoom dañ ko doon jëfandikoo boo xoolee jëm jannatul murid ak yeneen téere yoo xam ne ni dañuy wax ci biir bayit gis bayit yi ñu daan di yaa muriid wala alayka bil muriid nangam nangam loolu nag tax na sëriñ bi moom bi mu ñëwee euh, dafa jël baat boobu rek xam ne moo dëppoog li mu def mu jëfandikoo ko nga xam ne bu dee ci senegal boo ne murit moom tool bépp Sëriñ Tuubaa rek la ñuy xalaat ndax ñi ci des ñëpp ay murit lañ waaye seen sëriñ yi day askanoo gën a ci seen sëriñ yi bañ leen koy woowee tax na loolu mudd baatu murit bi Sëriñ Tuubaa nag moo indiwul askan ci li muy liggéey waaye dafa bàyyi rek baatu original boobu moo waral Sénégal saa boo ne am murit boo ne murit rek ñu laa di wax euh, taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nag di koo xam ne jagle yu bare bari yàlla da ko defal bu dee melaw bi am muritam war a am euh, daanaka sax day dañ naan moo war a gën tar ci muritu keneen ndax euh, jëmm ju nekk dayoo bi mu ak ni mu mel ñi àndak ak moom dañoo war a fexe ba doon nit ñu mel noonu maanaam sëriñ bi rëy gi mu rëy ak fi mu yegg ci mbiram ay taalibe bi maanaam noonu la war a amee positif noonu la war a góorgóorloo ci uh, aw aw aw yoonam ndax ni mu jàngalee ak melokaan yi mu yoroon li ko diine jaral alquran li mu ci liggéey li mu liggéey ci sunna loolu lépp képp di taalibe boo ko bàyyee rek da yor melokaan woo xam ne nii beneen murid yow du yor melokaan wu mel noonu. jagle yi ko yàlla defal nag ci lislaam bi mu doon liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam mi mu doon liggéeyal ay ati at ci tumuranke ci ay mettit ci taxalikoo ki mbokkam yooyu yëpp ay mettit la yoo xam ne yàlla du ko liggéeyloo benn jaamu ba noppi du ko ca joxo ak pay pay boobu nga xam ne nag moom la ko jox ngir li ko yàlla jaral sallallahu alayhi wa sallam jaral ko ko lislaam ak alxuraan jaral ko ko pay booba nag dafa dafa dëpp dafa dafa mënalaat ñu ñëw ci ñi nga xam ne dafa aju ci ñoom nga xam ne ñu aju ci Sëñ Tuubaa yàlla beral na leen yeneen ciir yoo xam ne ni wuuti naa ku aju ci euh, ci keneen lu mel ne kullu muridin bi yaruusu yasaadu wa innahu min al azaabu baaxalu bépp taalibe boo xam ne wéeru na ci ci man dama taxe te ko soril lépp luy lor li kulli man taallaqa bi yan najaa min kadari dinaa fi yawmin najaa képp ko aju ci man mucc na ci nax-naxi adduna ak nax-naxi euh, alaaxira te loolu mu indi ko lu lu bare ci ay mbindam wax na uktub liman axada wirdi yaa karim mustaamilan bihi sawaban laa yarim wax yu bare bare yoo xam ne Sëriñ Tuubaa da ko jël jëme ko ci ñu aju ci moom am na fu mu waxee ne taaba nufuusu taaba nufuusu man taallaqu biyaa dunyaa wa axraa zaaka fadla rabbiyaa mboolem ñi nga xam ne nii aju nañu ci man seen xel day dal adduna ak alaaxira te loolu lu sama borom la kon loolu yëpp rek eh, ay may la yoo xam ne Sëriñ Tuubaa yàlla da koo baaxee mu jëm ci ñi nga xam ne ñoo aju eh, ci moom loolu am na solo la waaye am na beneen xët wu tàmbalee ca juróom-ñett fukk ak ñett foofa mel na ne danga cee indi ay dénkaan yu aju ci loolu ñi ngi ci waxtoom mosuñoo dañ sax di nekk ci waxtoom saa yu ne dañuy soxla di dégg ay dénkaan yu jóge ci sëriñ bi jëm ci taalibe yi waaye foofa yan melokaan wala boog yan ndénkaan nga tànn andi ko ci téere bi muy ndénkaan yoo xam ne sëñ bi da koo wax jëmale ko ci ab taalibe bokk na ci ndénkaan yooyu nga xam ne sëriñ bi da koy jëme ci taalibe yi am na ci boo xam ne da koy jëme ci wax ñu ñu góorgóorlu bu baax baax ci sariya boole ko nag lépp lu ñu jàpp ci xaqiqa ñu di ko eh, jëfandikoo waaye it di fexe ba ndigal yàlla yépp ñu sax ci def li ñu yàlla digal wattandiku mboolem loo xam na nii yàlla tere nañu ko mu xamal ñu ci biir ndénkaan loolu ne jamono ngi ñëw nag am na yuy xew yoo xam ne nii mat naa yeete lool mën naa jàjj lool am na luy ñëw ci kanam loo xam ne nii da ngeen xam li tax man ma di leen digal lii képp koo xam ne jot na ci na ko euh, jottali ba tey ci biir am na fu mu waxee ni na ngeen euh, maa ngi leen dénk euh, xam-xam ak jëf ak ay teggin te wattandiku fo wattandiku wax ay jaaxaan wala jëw nit ndax nee na képp koo xam ne day jëw doomu aadama te bu ko yàlla jégal bu tuub ba yàlla jégal ko nee na kooku du faatuwaale ak tawxiid ak yeneen yu bare bari yoo xam ne ni dénk nañu ko ci dañu sonn ci sunu diine ak sunu taalibe kon loolu mën nañ ko tudd ci ndénkaan nga xam ne dikk na ci biir téere bi loolu nga xam ne dalal ngeen ko ci euh, Muxaddamatul Xidma noo ngi jaajëfal sëriñ Jili Buso mi nga xam ne moo ko doon coordonné di ñaanal ñëpp màggalu jàmm di sant mboolem ñu doon seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu barikàlla macha wi dafa xaw a xat te mel ne ne jubluwaay bi amoon ci jotaay bi am nañ ko muy rek euh, di jàppalante ak gëstukat yi ñi nga xam ne xam-xam da yitteel bu ñu amee ak posé bu ñu amee occasion dalal leen fii ci euh, télévision MK TV muy télévision muxaddamatul xidma bi yore jumaa Tuubaa ji tey ñu àndoon ak suñu mbokk euh, di ndaw loo xam ne ci comme ni mu ko waxee ci dëkk bi la euh, feeñe di ab gëstukat waaye it di ab daankatu dooleem boole al ilmu wa kasbul xalaal yëngu rek ci xam ak di yëngu ci fàggulu lew bind téere bi nga xam ne mooy muridullah tey ñu loon ko fii ngir gaaral téere bi ngeen xam ne nag téere bi euh, àgg na ci euh, téeméeri xët waaye dañ ca tànn rek ay benn bennat jàngat ko laaj ko bu ko defee képp koo xam ne xëy na danga ko danga la yitteel yaakaar naa boo jokkoog sëriñ Moor wala ay ndawam da nga ci mën a jot incha allah waaye ñun liñ ci yitteeloon rek mooy euh, jéem a bokk xalaat yi ak it dénkaan yi ak laabire yi rawatina njariñ yi nga xam ne moom la téere bi làmbool moom la ëmb kon xam naa dañuy E, tëj jotaay bi fii di leen sant di leen gërëm di leen jox ba leen ndaje incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد wa rizqahu wal takfihi an nakadi ci géej géej la Bamba tijjee dambi xam-xam ba faf pour ali way xalima boromam ba ak ci yàlla ak ci ngeen ji yoon nen ñu soppi ko soppi lépp muy boromam